def mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com ñu am mbégte lool àndaat ci seen invité de la rédaction tey nag ñu fas yéene ànd ak ki nga xam ne nag moo di Cheikh Bamba Diop mu nekk koo xam ne ràññee nañ ko lool euh, jiite tamit euh, fondation Action Aide tey ñu am ko ci en exclusivité Cheikh Bamba gannaaw bu ñu la nuyoo moo bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo lay topp ci 24actu point com. Euh, waaw di leen particulièrement yow Ousseynou parce que yàgg nañu daje. di nuyu ñu ñuy seetaat yëpp di nuyu aussi ñu leen di suivre di ñaan suñu borom doole fi jàmm. voilà euh, wax naa ko léegi ci bi may euh, présenté ak Action Aide nekk fondation bu nga xam ne mi ngi euh, basé wu mën nañ ko wax basé wu ci Allemagne waaye yow tamit ngeen ci doxal liggéey fii ci Sénégal ndax mën nañu xam dëgg-dëgg fondation bi pour ñi nga xam ne xëy na eggaguñ ci ñoom. effectivement fondation bi 2007 la ñu amoon. objectif bi mu nekkoon benn association mu nekk association entre être euh, nekkoon suñu ko fële ci Dakar plateau rek la amoon mais euh, comme li ñu amoon comme programme dafa xawoon chargé de telle sorte que fondation bi euh, kii bi association bi mënu ko woon gérer parce que yu bëree bëri man damay yàgg contre injustice damay yàgg aussi humanitaire ñu wax l'aide humanitaire def dama ko daan suivre donc loolu moo ñu dugaloon ci association boobu ñu nekkoon ci euh, quartier bi doon def entre aide xale yi ndaw yi ordonnance yi ak yooyu 2007 ba léegi donc gën na yaatu chaque année dañuy gis que ni objectif yi ñuy am mm. day gën a large mm. c'est-à-dire euh, bu ñu amee objectif mm. ren ne dañuy def bâche Touba euh, déjà nii nii nii rek ce matin ñu may wax ne ma Daaru Musti daal Musti war nañ fa def benn kii parce que intéressé wu nañu donc objectif noonu la ñëwee si euh, association bi ñu dem ba xam ne li ñu bëgg a def association mun ko gérer ci la ñu dem xare xeex ci autorités yi fi nekkoon ci jamono boobu maa ngi tudd léegi Cheikh Tidiane Gadio ñu tudd yeneen autorité aussi ñu fexee ñu am récépissé bi boobu ba léegi aussi gis nañ ne liggéey bi mu ngi largé que mais est yomboon na ci temps boobu ngeen am ko non temps euh, yombul parce que temps boobu boo xoolee benn banque rek ne dafa bëgg a def fondation parce que entendre nañ ma ci ah, ci ay secteurs yu bëri entendre nañ ma ci ci ministère intérieur entendre nañ ma ci aussi ministère de la famille la famille ci yu bëree bëree bëri est ce que nan lañ ci war a taxawee ak est ce que xam nañu lan dëgg-dëgg lan mooy donc te répondre nañ ci aussi yaakaar naa ne euh, réponse yooyu bu loolu moo taxoon ñoom itam ñu fi nekkoon ci jamono yooyu. Mm-hmm. ñu man ñoo livré licence bi. Mm-hmm. boobu ba léegi nag wax di yàlla ñu ngi def ay liggéey yu am solo. ak ñu ko àndal. Mm-hmm. parce que fondation bi nekkatul Bamba rek léegi. léegi léegi gën na gën na yaatu quoi moomu ma ko. donc dafa nekk loo xamante ni nii daanaka euh, dañ ko associé. donc ñi ci bokk bëri nañu am na ci ñoo xam sax ay kilifa lañu. ñu toog seen bureau bokk nañ ci fondation bi la preuve que. Euh, Serigne Mountakha ñu ngi ñaan mu yàgg fi loolu te mm. bi ñu fa demee màggal deux mille quinze. Mm. boobu nekkul woon xalif général mais bu ñu demee bi ñu ko expliqué projet bi ak li liggéey automatiquement la ko jox carte mmh. moom mu bokk ci fondation bi ci lay xam na de naissance am parce que ah, ñu mu daal daal mmh. yi ñu ko posé yëpp loolu bokkoon na ci lu ñu marqué xam naa dinañ ci dikk bu baax a baax euh, fondation Action Aide bi ci lan lay gën di yëngu waaw actuellement fi mu nekk nii eh, am nañu bilan bu positif parce que am nañu benn maternité côté Felane côté Foundiougne mm-hmm. am nañu aussi classe eh, ñaari classe ci côté Kaolack yoo xamante ne abri provisoire ñoo fa nekkoon donc donc donc ñu ñëw élever ko mm-hmm. enlever ko donc def construire fa ay ay classes. Mhm. Euh, am actuellement aussi euh, am nañu donc trois dons yoo xamante ni nii de yi ambulance la. Mhm. beneen bi ci des moom ambulance bi beneen bi euh, dañu ko muté ci fondation bi. parce que dañuy soxla ay consultation gratuite ak yu noonu. loolu moo tax. donc à part aussi le programme spécial yi am. Mhm. ci journal officiel fondation bi am na programme spécial Ramadan. am na aussi programme spécial Magal. Mhm. am na programme spécial Mawlud. Mhm. donc bu ñu mujjee def réunion de comité bi sax maa ngi wax ñu xalaatee pour ñu mën ci muté. Mhm. Magal kas ci rajo bi ak euh, Proxal. voilà euh, weeru koor bi dañoo ràññee seen taxawaay lool ci Touba mooy ay ndog yoo xam ne da ngeen koy togg di ko jox euh, ñi nga xam ne ñoom la dog di fekk ci yoon bi wala sax yenn ci ay hôpitaux wala ñu nekk ci prison yi lu tax loolu. effectivement ci journal euh, officiel fondation bi dafa am lu ñuy wax programme spécial ramadan programme spécial ramadan boobu li ñu ciy def mooy li ñu ci jublu mooy euh, weeru koor dafay métti ci ñu bëri te euh, boo xoolee ñuy ñu ñu tànn secteur yooyu comme santé bi comme mënoo woor te doo dox sa ay soxla donc kon bu fekkee da ngay woor di dem di doxi sa ay soxla fokk mu dog mën na la fekk ci yoon donc ñun ñu amoon objectif ne nañ ci liggéeyal yàlla bu fekkente ne li ñu wax ci weeru koor yëpp Euh, noonu la amee donc pourquoi kon duñu ci liggéey bi am duñu profité ci weer boobu noonu mm-hmm. parce weeru weeru weer weer weeru weer wala boo xamante ni lépp looy def ci lu baax war nga ci mën a profité mm-hmm. parce que adduna euh, moo doxee noonu mm-hmm. et puis ñu jaamu ci yàlla voilà ñu jaamu ci yàlla ñi ñu koy àndal aussi comprendre nañ loolu parce que programme bi li ma la waxoon bu njëkk Dakar rek la doon yàpp même bu ñu daan génn sax dañuy luyee bi jeunes yi nekk Dakar ñoom ñooy def Mm-hmm. mais léegi présenté wu nañu un partout mm-hmm. donc yàlla ñu ñuy dimbale ba événement yu bëri ñu def ci ci koor gi mm-hmm. ku ci nekk ci sa bâche. yow yaa koy defal sa bopp. ok euh, gis nañu aussi que ni fondation bi comme ci seen bàkk muy fondation des jeunes patriotes euh, patriotes du Sénégal. ñu gis ne fondation bi ndaw ñi ñëw ci ëpp lu war a loolu ak ndaw ñi ni ñuy bàbbeekoo di ñëw di dugg ci fondation bi. effectivement c'est euh, liggéey bi ñuy liggéey mag mënu ko am na mag yoo xam bëgg nañu ko ñu ngi jéem da ngay gis sax ne ñii dañuy jéem. am nañu yéene bi am nañu yéene bi. Mm-hmm. yow témoin nga ci journée bu ñu defoon bu soobee. bu ñu doon defaral soow yi ak yooyu. mag la mag nañu yaay. Mm-hmm. donc da ngay gis ni bëgg nañu mais peut-être kattan nga moo fadul nekk comme jeunes yi nag am nañu kattan mm-hmm. et puis am nañu bëgg-bëgg bi am nañu volonté bi aussi mm-hmm. ñu ñu ñoom lañ koy gën a àndal mais du tee aussi ba tey am na ay mag yu nekk Dakar ñoo xam dañu nekk seen i bureau dañu nekk te yor nañu carte fondation bi te dañ leen di informer ci activités yi ñuy def et puis mm-hmm. dañuy participer mu mel ni dañuy participer voilà mu mel ni bu weesoo Dakar itam na yemul ci yaatu na ci effectivement actuellement am nañu trois antennes Dakar am nañ fa six sections parce que section ak antenne bokkul. Hmm. antenne bi par exemple mën na nekk régional. section bi nekk départemental. Hmm. wala euh, wala communal. donc loolu moo tax euh, section xaw différence tuuti ak ak ak antenne bi. donc Dakar am nañ fa trois antennes. Hmm. Euh, Thiès am nañ fa deux antennes. Kaolack benn. Mbour benn. Kébémer benn. Touba benn. Kolda benn. Tamba benn Ziguinchor benn. Euh, Sédhiou am nañu section la ñu am amuñu fa antenne Bakel aussi section la ñu fa am amuñu fa antenne Saint-Louis am nañu fa antenne donc ñu ngi xool actuellement nii nii nii nu ñuy installé daal ci benn antenne ak Dagana Dagana aussi ñu ngi fay yéen a ngi bëgg installé euh, gis nañu ne euh, taxawal fondation yombul waxuma na nag depuis 2007 ba léegi fondation bi dem lan moo tey fondation bi ba léegi ak fan ngeen di jëlee fonds yi effectivement damay wax toujours dafa am benn kilifa bu baax dama koy rappelé lu bëri yàlla moom na ko ci jamono yi ñu génne nii muy Ahmed Bassirou Kounta. Mm. Ahmed Bassirou Kounta dafa mos a laaj ni ma Bamba lan moo nekk secret wu fondation bi parce que yéen bi ngeen di def cérémonie de lancement bi invité woon ngeen ma ci. daanaka moom moo nekkoon parrain mm-hmm. ba pare ne ma boobu ba léegi ñëwoo leen ci man ma atte leen ba pare aussi gis naa que ni yéen organisation bi ay jeunes rek ñoo ci nekk. te jeunes ñu nekk dina am ay. ay ay bruit te mm-hmm. man du ma ci dégg bruit. m mm-hmm. problème bi ñu def. moo tax du mën a am bruit. Mm-hmm. parce que éca lépp lu jëm ci politique dañ ko ci écarté. Ah, donc confrontation bi laalewul ak politique. non laalul dara ak lépp lu jëm ci politique dañ ko ciy écarté lépp lu jëm ci aussi mm-hmm. euh, xaalis. Mm-hmm. joxalante xaalis ak yooyu dañ ko ciy écarté. daanaka ñaar yooyu ñooy ñooy mën a indi ay problème ci ci ci am. te ñaar yooyu yëpp yàlla dimbali nañu ci ba dañ ko ci écarté. du ñàkk nag des ñuy am ay ay ay parce que bi ñuy def suñu journée bu Kébémer. première jour bi fa njëkkee intervenir maire bi wan ne ma dafa bëgg logo logo fondation bi. Mm-hmm. moom ñu defaral ñu t-shirt yi. Mm-hmm. def ci logo fondation bi ak logo mairie bi. Mm-hmm. dama ko non non loolu mënul nekk. ok parce que dafay laal dafay laal. voilà bu boobaa dafay ñu respecté normes yi. dem nañu bi ñuy dem ngir ñu new. Souleymane Ndéné Ndiaye nee na ma sama jarbaat lan ngeen di xaar ci ma. ma ne ko ñun xaaruñ ci yow dara wax dëgg yàlla. dañuy ñëw rek. am benn objectif. boobu la ñuy ñëw pour réaliser. donc moment bi nag comme yaa fa nekk maire. donc yow yaay yow yaay yow yaay yow yaay gox bi donc c' est normal que bu ñu waree ñu ci sa secteur def fay activité ñu bind la loolu rek moo tax ñu la ñu demee après il a compris euh, peut être devise u fondation bi bi ñu demee fekk nañ génneel ñu ay ndox foofu ay boissons dem nañ ba euh, euh, programme bi ñu fa amoon dañ ko yokk dolli ci Bousra benn daara bu nekk Bousra foofu noonu boole wuñ ko woon ci programme bi ñuy dem peut être bi ñu demee fekk nañ fa mu tegal ñu fa jumtukaay boo xamante ni war nañu mën a élargir programme bi mm-hmm. donc loolu moo tax taxoon te moom bi ñu ko defee itam ñun mm-hmm. bi ñuy def cérémonie bi bi ñuy expliquer ak euh, membre yi ñu àndaloon mm-hmm. expliquer nañ leen carrément acte boobu da ko def en tant que patriotisme exemplaire c'est-à-dire acte bu patriotisme exemplaire en tant que patriote donc loolu comprendre naa parce que wax naa ko ko mu ma du ngeen ma gënu leen ma nekk ay patriote donc loolu mun nañ ko classé comme foofu. Euh, voilà gis nañ tamit euh, liggéey bi nga xam ne moom ngeen di amal ci wàllu diine muy euh, daara yi nga xam ne da ngeen fay yóbbu ay ndogoog yu mel noonu waaye itam këru diine yi daal gis nañ ne da ngeen cee dugg bu baax ndax kilifa yi ni leen war a jàppalee dëgg-dëgg ñu ngi koy jàppee. effectivement fi ñuy faral di di di intervenir comme ça daara sëñ Mor Mbaye Cissé. daara sëñ Mansour Thierno Mansour Baro bu Mbour daara Kokki mm-hmm. daara Euh, en même temps daara bu El Manjour bu bu Grand Dakar yooyu dañ fay intervenir ci lu bëri pourquoi euh, ñi fa nekk comprendre nañ li ñuy def lu mu doon te ñoom ñoo ñu koy demandé dem nañu ba ñoom ñoo ñu koy demandé pourquoi ñu ciblé daal yi aussi daara xale yi fa nekk amuñu doole te euh, gis nañ ne sëriñu daara yi dañ leen di seetaan ak xale yi du ci bëri parce que ñun en général boo gisee ñu def dara rek mm. def nañ ci enquête bi la ñu koy def même hôpital yi ngay gis ñu Euh, dama doon dem euh, madame Kébé docteur bu CTO daf moo waxoon benn jour ne ma Bamba xoolal benn malade bi ñu hospitalisé fii évacué ko depuis Kolda mu ñëw fii amu fi mbokk waa village ba ñoom ñooy dajale di jox ko patient bi ki nga xamante ni nii moom moo koy eh, aidé ci biir hôpital bi mu ciy dund hmm. bu jeexee foog muy xaar da gis sax day ñëw di leb la ordonnance bi nañ ko yónnee mm. donc souvent ñi nekk ci hôpital yi mm. da cee am ñoom ci banlieue bi tout Touba par exemple mm. hôpital Matlaboul Fawzeyni man bu ma ko demoon def enquête nee nañ ma 35 euh, pour cent ci malade yi ñu fa hospitalisé ci banlieue ba lañ jógee nga xam ne dañu comme ni ñu koy am ñu leen di indil añ foofu ci hôpital mhm. du ñu am looloo tax hôpital yi nekk foofu souvent da gis boo génnee ci biti mhm. ñi teg ay table di jaay fondé ñi teg ay kii loolu nag enquête boobu bi ñu ko defee loolu moo tax souvent aussi ñu intervenir bu dee koor gi mhm. ñu dem di leen yóbbul ay ndogu donc loolu lañ ciy jublu ok jamono ji lan mooy programme bi nga xam ne nekk na seen kanam actuellement am nañu war a dem am na programme boo xamante ni nii aussi ñu ngi koy commencé ci euh, Kassi rajo bi mm-hmm. parce que euh, Kassi rajo bi ñetti antenne dinañu fi nekk antenne bu Diourbel dinañu dem gérer yi euh, Kër Soxna May Gala mm-hmm. antenne bu cees ànd ak ñoom ñi nekk Rufisque dinañu ñëw dem Kër Sëñ Abdou Karim léegi nag fii communiqué wu ma ci woon ak ñi nekk Touba mm-hmm. Euh, mais ñoom Saint waa aussi jibisee ñoom ñi nekk Saint-Louis. ñu nekk Saint-Louis nekk kër Serigne Abo. Mm. yaakaar naa mooy kër Serigne Fallou foofu la Serigne Abo di di màggal. Mm. Mm. donc programme boobu daal fi nekk nii nii nii sax ñu ngi ciy liggéey. ok lan mooy jëmuwaayu fondation Action Aide jamono ji. gis nañu ne euh, euh, xëy na ñi nekk biti réew bëri na ñoo xam ne dañuy bëgg di def social bëgg ciy jàpp. waa am na xalaat ngeen pour yaatal ko ci yeneen bu weesoo Allemagne yeneen dëkk yi. effectivement Italie am nañ fa section. Hmm. Nafi moo fa nekk Nafi ñaar. Hmm. donc am nañ fa section. Italie euh, Pontevico. Hmm. am nañ fa aussi euh, am nañ ko Bruxelles. Belgique. Euh, Allemagne am nañ fa benn antenne. ak benn section. ñu nekk Hernden benn bi ñu nekk Wusubalden. donc à Espagne. Espagne demoon nañ bay dox ci ñu créé fa benn section far mm. yàlla def ki ko xam te moo fooroon taxawal suñu borom mm. def mu am benn maladie mm. ñu ngi xaar mu tane ba mën a reprendre ay activité di ko ñaanal aussi mu jot ci loolu parce que lu am solo la aussi voilà c'est très important kon euh, xam naa mu mel ni jamono ji na ñu ngi ci cëppaandaw li ma bàyyi la xëy na loo xam ne bëggoon nga ko wax ak euh, nga tàggatoo wala ñi nga xam ne ñoo lay seetaan ci 24actu yi waaw li ñuy tàggoo toujours damay wax ne fondation bi mooy faire du social partager euh, ak ñi nga xamante ni nii amuñu loolu aussi yàlla mi ngi ñu ciy dimbale parce que toujours dañuy am ay amélioration yu am par exemple korité bi jàll rek ñuy def korité jënd nag rey ko def ay sàmm mais korité bi jàll gis naa ko ni affaire bi innové na parce que dama leen wax ne leen léegi au lieu ngeen di jënd ay nag léegi li ngeen jëndee nag jënd leen ci cent cinquante poulet mm. léegi ñu jëndee cent cinquante poulet ñu def ay sac mm-hmm. ñu defee ay sac donc sac bu nekk ñu def si deux poulet donc distribuer presque cinquante et quelques maisons yi nga xamante ni nii dinañ leen jox ñu korité loolu hmm. lu am solo la donc ne aussi adduna mënul dox tant que production amul yow adduna bi ci noonu lay doxee boo gisee que ne américains yi doole bi ñu am. Mm. ba mun teg pression doole monde entier. Mm-hmm. loolu rek moo leen ko may. war nañu mun référé foofu aussi. Euh, def benn mettre en place benn benn système boo xamante ni système de coproduction lay doon. bu ko defee ki am suukar ak ki am café ak ki am ndox. Mm-hmm. ñu mun a bañ a xaar rek naan ba ma am nangam ba ma am effectivement ñoom ngeen di jox euh, don yi ñoom ban sentiment lañ ciy am ak lan ngeen di amaat ñoom buñ leen ko waxee c'est-à-dire bu ñu jotee don bi daal lan ngeen di yëg ci ñoom. effectivement man li mu ciy neex. daanaka don yu ci bëri sax bu ñu koy joxee bu mu fekk. parce que man li mu ci bëgg rek problème yooyu ñu résoudre ko. problème bi rek voilà donc mënuñ ko nag def à 100 pour cent. Mm. mais yaakaar naa bu fekkee mën nañu régler 1 virgule. Mm-hmm, mm. mm-hmm. keneen régler 1 virgule. keneen régler 2 virgule. keneen régler 5 virgule bu yàggee problème yi dina régler wu. mais yàlla xam na ni ay pro ay yu bëri yu am. Mm-hmm. du ma ko duma ko du ko du ma ko fekkee. Mm-hmm. am na sax du ma ko yëg. ko yëg parce que Rufisque. Mm-hmm. am na fa eh, ci ci parce que Rufisque fondation bi antenne bi mu fa am moo gën a mag. Mm-hmm. parce que ñetti association ñi ngi fa lañ la ñu boole association Youssou Mbergane association Seqal sa Gox ak beneen association donc ñoom la ñu boole mooy antenne bi foofu mais des fois bu ñu may wax ñoom seen seen seen seen seen usage parce que dañu yore ay mains courantes yoo xamante ni nii dañ ci mentionné toutes mm-hmm. les activités que mm-hmm. donc bu ma demee ñu ne ma hôpital tel sur tel jëndal nañ xale bu tudd abi abi seen mm-hmm. bi ma mujjee abi seen jëndal nañ ko ordonnance trois fois ba topp suivre nañ ko ba mu génn hôpital donc yooyu noonu damay fier te yàlla yàlla xam na ne instruction yooyu noonu du jógee ci ñoom donc ñoom ñooy dem ba xam ne taxawaay bi fan yële rek ñu ngi may wax ne ma donc jënd nañu matériel matériel boo xam te ni man demandé wuñu ma parce que dama doon wax ñu créer leen sonorisation yóbbu leen fa sonorisation ma dem ñu ne ma même matériel koor jënd nañu ay brand jënd nañu lii jënd nañu ma ne ah mais attends kon léegi <laughs> affaire bi bokkul la ah, affaire bi nekkul man kese mel na kenn gars yi nekk gën koo bëgg sama voilà hmm. boo demee aussi euh, fële euh, plateau nga gis poubelle yi ñuy jël di ko crossé si poto lamp yi hmm. un peu partout foo jaar gis ñu bind si benn poubelle action aide nga gis ne hmm. ñoom extraordinaire am solo la lu extraordinaire voilà nga tàggoo ñu lay seetaan waaye ngi tàggu ñëpp ñu mm. leen jox daje aussi ci événement yi ñuy di xaar mooy Porokhane ak Kazu Rajab bi ñaan suñu borom defal ñëpp te aussi def ci poste yu bëree bëree bëri lu ñu mën a gën a yokkee liggéey bi amin amin amin voilà mu nekkoon euh, Cheikh Bamba Diop euh, euh, mi nga xam ne mu jiite fondation Action Aide yaakaar naa ne waxtaane nañ ponk yu bëri yoo xam ne lépp dafa jëm ci fondation boobu nga xam ne bu yàgg ba léegi ñu ngi def ay liggéey liggéey yu am solo yoo xam ne dañ koy amal ci biir nekk fépp daal ci àdduna fi nga xam ne daal doomu aadama yi dañ koy soxla ne yaakaar naa c'est pas la première fois ñuy liggéey yàgg nañu ànd ci ay liggéey incha allah j'espère que dinañu ko continuer ndax euh, lépp rek askan wi moo ñu tax a jóg ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm Baye Zal moo nekkoon ci caméra bi montage bi Khady Niang di leen jox dig daje incha ci yeneen jotaay invité de la rédaction jërë ngeen jëf